ci Ross ay ndaw yu fare ci diwaan bu cëddeem dal di yëkkati seenub kàddu ngir dëggal seenub taxawaay ci ginnaaw kii di Bouna Bar loolu yi ñu amal ko ci jamono bu ñuy waxtaanee ana naka lañuy def ngir gën a suqali seenub gox boobee jaarale ko nag ci lépp lu jëm ci wàllu politique naka noone ñu jàpp ni moom mii di Bouna baar doon na tey koo xamante ne référence la ci seenub liggéey ci wàllu wii. depuis bi Bouna nekkul dara. liggéeyul deful daal di jàng yorul dara comme boobu la gën a man taxaw dañu jàppale si lépp fexe na ba ñu formé suñu ASC lépp loo xamante ni rek bëgg na ngi fii si koñ bi si lu baax rek bu na mu ngi ciy daw ñu xool tamit xam ni tamit moom intérêt personnel intérêt intérêt boppam kese taxu koo jóg intérêt koñ bi moom moo ko tax a jóg bi ko intérêt koñ bi taxee jóg na ñu xool ko ba seppali ko si biir nit ñi ba xam ni carrément kii intérêt koñ bi kese kese kese kese moo ko tax jóg mais du intérêt boppam ñun suñu classe yi ñun ñëpp ñu taxaw ñu woo ko ba ñu ne ko buuna ñun de wax dëgg yàlla bu doon suñu sago yow la ñuy jiital moom jiitalul boppam ñun ñoo ko bëgg jiital. buuna baar man gëm naa ni koñ bi moo ko ñor ndax mosuma wax waxi boppam wax koñ bi rek la may wax depuis ñu commencé di forme former ASC boobu ñu nekk ay tout tànk mun ma dañu war a am ASC ndax kon yëpp nañ ko amee même bu ñu fu footballwul nañu forme ba ñu xam ne ci dem am na ay dana tax ëllëg lu ñuy séddale ci dem si am. tey bi nag ñu wane ci ab détermination jàpp ni kii di Bouna Bar gisuñu ci ñoom euh, benn profil bu ni mel ñoo xamle rek ni tey jii ñi ngi ci ginnaaw muy tey muy suba ak ginnaaw ëllëg lépp rek ngir développement gox bu ca dem. te ku ne xam na ni politique buñ koy wax fii si ci dem tey bu demee ba toll fii tey micro ñu mën ñu ko dékk ñuy wax c'est grace à buuna nan wax dëgg quoi moom moo fi nekk dëgg moom moo neex yàlla man mi tey su ma demoon ba pare man pour ànd ak keneen bàyyi fi Bouna. wallaahi ansi ma bàyyi politique. li may wax mooy jeunesse bi mooy boo yi nga xam ñi ngi sama ginnaaw ak ñi nga xam ni à travers si lii nii ñu taxaw nii di wax ni si lañ mën a déggee li may wax mooy que ni ñun ñëpp nañ nekk ci ginnaawam jàppale te man xam naa ne moom koñ bee ko ñor dëkk bee ñor te koo xam ne si ni koñ bee la ñor dëkk bee la ñor yaakaar naa ne kooku kat moom moo nekk ki nga xam moom moo jar jàppale. man nekk sama ginnaaw ñu may dégg wala ñu may waxal chaque jour ko jëfee ñun buuna lañu topp loolu buuna bëgguñu ku mën a ñëw fii porte ak ak nit ku mën a woo nit tey amul ku mën a doon tey amul amul wax man lépp leen wax man tey dem leen si buuna parce que ñun buuna la am buuna la ñuy topp. ñun amuñu ku dul buuna bëgguñu ku dul buuna waaw loolu daal nu gëm si lool na ñuy dox si loolu ñuy wax ñun daal kii mooy sunu leader waaw boo fi doon indi ay milliards koo mën a doon moom jeunesse baa ngi nii gëmuñu kii daal nañu gëm. moom nañu xam. ginaaw jiital googee nag ñu jàpp ni dañuy wéy nag di ko gunge ci taxawaay wi ngir lépp rek loo xamante ni dana ajo ci mission boobee ñu ko wékk mu mën caa àgg am ca ndam la ñu soxla. ñun bu ñu jiitalee buuna aussi tamit te joxuñu ko les moyens joxuñu ko la pouvoir parce que lan la ñuy wax pouvoir ki diriger moom mooy lan il a une organisation derrière lui moo dafa am ñoo nee dañu nekk si ginnaawam ñi nga ñooy teg ñooy tracé yoon bi ñu war a jaar di di motiver loolu noonu. di di pousser à ce ñu yegg si loolu noonu à chaque instant te ñuy liggéey ci benn fil surtout développement ñor la te ku nekk si koñ nag war nga bëgg koñ bi développé wu donc les na ñu jël ñun jël décision de de d'ores et déjà à ce que lan ñu mën a booster suñu koñ mu développé parce que bu développé suñu koñ la bu développé suñu koñ la. jéego yi nag li ko waral di jàppale kii di maire bu Ross Béthio Faly Seck loolu yi ka ko xamle moom moo di Saliou Baar moom mi jàpp rek ni Bouna Baar bokk na tey ci ñi nga xamante ni lu jëm ci wàllu dajale ndaw ñi am na ci pas-pas bu yaatu. Faly lii rek la soxla ku dajal ay ndaw xirtal leen ci développement dëkk tey duma ma ni Bouna li ngay def ni baaxul dama naan dama koy encouragé ni ko li ngay def nii lu baax la tey man ku mel na Zal mënu ko wala keneen keneen mënu ko moom man na ko dajale ndaw yi ak a pare leen ñu xool lan mooy njëriñu ca dem lii bu si ca dem duggee dañ ci génn wul du ci génn naka noonee ci ay kàddoom Bouna Bar yëkkati cant ak ngërëm jagleel ko ñii di ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jox lilee ci ay confiance tax mu dellu siwaat gën a dëgëralaat taxawaayam ci ginnaaw maire bu Ross Béthio Fally sek ba noppi nag dal di ñëw ci li nga xamante ni moom moo di ay naal ak ay liggéey yu solo yi nga xamante ni tàmbali ne ko ci Ross Béthio gërëm naa leen sant na leen ñun nag politique bi ñuy def ñu ngi si ànd ku mel na Fally muy monsieur le maire Ross Béthio réccoo wunu ànd ak moom ndax ku gis d'abord réalisation yi mu ciy def ci diggante bu fi nekkee lu matam au moins 2 ans moins de 2 ans il fait rêver donc la population de Ross Béthio alors que dañuy ñaan rêve yoy non mu fekk ay rêve la sax mu réaliser mu doon deug mu doon deug ndax tay tay boko ko doon joxe ci département bi dang nga koy xëccoo néew na communes yi nga xam ni dañ naan leen ah kay leen jël faali sekk ñu tendee fa te gis naa ni ñun dañoo am chance ndax yàlla dafa def si jëm si yàlla ji Bécaye Diop mu liggéey li nga xam ni au mës ñëpp a ko soxla woon mu jóge féet ñu koy ñaanal xam fa mu jëm mu gën a ko fi mu jóge di ko ñaanal xam suuf suuf sedd si kawam woyof si kawam léegi ñu amaat chance ku mel na faal mu ñëw fi kon ñun tamit ñu am teel a gis-gis ni te l'homme qu'il faut à la place am qu'il faut ñu teel a engagé wu ànd ak moom tey it réccu wuñu diggante bi ñu ànd ak moom en matière de li nga xam ne def na ko fi si si publique public lampe yi gis ngeen ku leen mu neex fanaan si en réalité bu dee emploi de la jeunesse ca bare woon na ay ay mag bare woon na ay xaal ay ay kii du gone mais mosoo leen dégg ñu ni diw mii lii nag di benn ci ay jéego li nga xamante ni ndaw yi Fally Seck yi ñi ngi wéy di ko wane ci biir commune bu Ross Béthio mu nekk beneen jéego boo xamante ni dafay jëm ci gën a yaatal lii di. taxawaayu APR ci Ross Béthio waaye tamit gën a feddaliwaat mobilisation ak kattanu kii di maire bu Ross Béthio ngir li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu politique ak it tamit ëllëgëm